mi day bëri te boo koy diwoo nii du bëgg naaj léegi su la toggee nii xam nga premièrement day rouge comme ginaar ngay togg nii rek ñorul boo ko xoolee xam nga ko rouge bi ngay gis léegi bu yàggee da day lakk. li muy yàq daanaka ñëpp xam nañ ko hydroquinone bokk nag ci yeneen garab yi koy daal di wundu ci fan yi ñu génn ñu daal di génneel ab lim ñi nga xamante ni nag ñoo ñàkk seeni bakkan ndax cancer de la peau. pikiiru diw saabu wala yeneen li ñuy jëfandikoo nag yooyu les produits toxiques di jur ay jafe-jafe wara nag ñi koy jaay ñu bëri duñu nangoo daal di tontu ci sunuy laaj yi ndax dañuy bañ seen client daal di daw daal di jaxase ay produit chimiques daal di ciy boole ñàkkum xam loole nag bokk na ci lu ko wundu bu ñu sukkandikoo ci bile jaaykat. parce que ñun bu dee ñun ñun en général bu ñuy def diw duñu mélangé di jàmb di teg di xaar client bi ñëw euh, pour jënd pot boo xam ne mélangé nañ ko mélangé nañ ko te xamuñu base bi ñu ko defaree xamul exact parce que produit bala nga ci mën a yi euh, dëgg dëgg dëgg da war a xam exactement ki ñëw ci yow ban genre type de po la amee. bu ñu xoolee mbir yi nag liñ ko daal di defaree ñuy xam ni dëgg la bile jaaykat daal di wax. naam nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di xeesal lenn rek lañ ci daal di bëgg maanaam eh, ci gaawaay gi ñu daal di ciy xonk itam koppar gu bari duñ ko daal di génnee. ñu bëgg urgence comme am na ñoo xam ne ñu bëgg ñu am naa xew samedi xew samedi bëgg belli balaa samedi xam nga loolu c'est jënd jënd lu baax. ñi seen xam-xam màcc ci li ni mel ñu joxoñ baaraama tuuma nag ñi nga xamante ne ñooy woowee seen bopp ay chimiste. mais en général ñu koy def seen marque bopp lañ jël du entreprise du du ñu koy mën a expliquer ñoom seen marque bopp lañ jël bu seen butéel vite taf seen marque mais diw moom daanaka dafa usine